te moo la man àdduna man la alaaxira soo toppee ca moom la nga bëgg lépp da ko am waaye nag loolu lépp ñi ngi koy amee ci ak topp topp nag dafa jafe ndax dafa bari ñoo xam ni suñuy topp nit mbaa boog bu ñuy topp kilifa dañ koy topp ci nim leen neexe waaye duñ topp kilifa gi ci nim ko neexe loolu it day mat a bàyyi xel mu mel ni nag yoonu murit daa am loo xam ni dafee amoon mi ngi continuer di am ba léegi waaye daa bari ci wet yoo xam ne dafa raaf ndax àdduna moo dox ba yegg fa waaye am na bërëb yoo xam ne loola ma nga fay des ba léegi ndax bu njëkk ñépp xam nañ ni yoonu morit rawatina jumaa ji ak liggéey yu bari ci yoonu murit yoo xam ni ay naan la yu fi nekk bokk na ci li ko taxawal mooy tooli àllarba yoo xam ni dañ ko daan bay di ko jébbal sëriñ bi mu di ko def ci liggéey bi ñu dem ba ay jamono ñu tollu jamono jo xamni ñu bari dañu joggé ci dëkk yi dem ci taax yi nekk ci bërepp yo xamni yombuta amé ay toll ci la señ Cheikh Gaynde Fatma jambar ju mag joju xalaté won li ñuy wax daire, daal di wax ni képp ko xamni tollu alar bay rawna la na nga fexé ba bula daaira yi raw mu melni kon loolu mo son daire, loolu ko sosoon nak ba mi ngi des di mag ndax fii ba Europe foo fi dem dinga fa fekk ay daayira yoo xam ni ña ngay taxaw di liggéeyal sëriñ bi waaye nag bu dee nag fii ci réew mi ci gox yu mel ni yii fi nekk nii muy fu mel ni Mbakaloog li ko wër muy Kajoor ñenn ñu ne xam nañ ni ba léegi ñoom dañoo desee mbay di bay mu mel ni nag mbay moomu ñu desee nga xam ne waxtu wu ne ñu ngi ciy yëngu ñaare foo fekk jëwri ni Sëriñ Tuuba day am ay tool yoo xam ni moom it ca lay nab na bi di ci sàkku addiye jum yët sëriñ bi mu mel ni tool yooyu nag ñaare saa bu tollee ci waxtoom da ngay dégg ñu koy santaane ak di ko woote mu mel ni nag kon day jaadu ci ñi nga xam ni ñoo dëkkee ci tund yooyu ak yi ko wër saa bu ñu àggatee ci waxtu yooyu saa bu ñu déggatee ndigalal sëriñ bi ñu di ci gën di bàyyi xel bu baax a baax a baax ndax bàyyi xel gi dana sabab sëriñ bi ni mu amee yéenee liggéeyal sëriñ bi mu man koo matale waaye ñàkk bàyyi xel gi du ko sooxeel waaye it mën na caa andi ak néggandiku kon loolu lu nu war a bàyyi xel la ci bépp kilifa boo xam ne daa nekk ci gox ci jamono yoo xam ni jamonoy nawet la ñuy bàyyi xel ab liggéeyam ba tax moom na mu bëgg a liggéeyee mu mën koo liggéey loolu dafa am solo lool damaa toog nag ak génn kilifa gu gu baax ndeysaan mu ci doon waxtaan di ci soññee mu ne tool yi nga xam ne day moom la ñenn ci njabootuk sëriñ bi di taxawal ci àll bi ngir liggéeyal sëñ Touba taalibe yi ko wër dëgg la fonk nañ ko waaye suñ ci gënee bàyyi xel jàppale leen ci dana gën a mën a ñoŋal seenug liggéeyal sëriñ bi te loolee nag noonu rek lañ koy defal defaluñ ko seen bopp ndax ñoom li ñuy am am nañ ko ba pare sëriñ Saalihu nag daf daan wax ni yoonu murit yoonu jëf la waaye du yoonu wax daa di wax ni képp ku ma xam man Saliou Mbacke xam ni jëf ak jëflu rekk mooy sama mbir te du ma jaawale jëfi kenn ak moroom ja te jëf ju nekk xam naa la ca la kon yoon wi loolu rek la laaj am na sax ñu koy wax ci wax ju xoromu naan Cheikh Ibrahima Fall daana wax ni adoom ku ñuqiwul doo ñuux kon kenn ku nekk war ngaa gën a bàyyi xel bu baax sa bopp dafa mel ni nag ci laay jeexalee addiye daay xaw a yomb léegi ndax lum gàtt gàtt di nga am loo joxe wërsëg nag daa yomb a joxe moo tax ñuy gën a bàyyiwaat sunu xel rek ci li nu boole ak sëriñ bi muy ak taalibe bu dëggu ndax sëriñ Saalif ma daf daan wax ni wërsëg de mën naa bari bay àgg foo xam ne sax ñorut borom waaye nee na ab tànk saa bu jugee fa neex borom rek lay jëm kon di yaale itam sëriñ bi bu baax. dafa ci am solo waaye li nga xam ne daf koy santaane it nga fexe ba sëriñ bi xàmmee la ci it dafa am solo ndax sëriñ Saalix dafa waxoon it ci xel kom nii yoonu murit de euh, ñu bari ñi ngi am ay tool ñi ngi bay waaye man Saliou Mbacke day li ma ci dugal laa leen bëgg a leeral daa wax ne damaa xam ne sëñ tubaab ku koy liggéeyal saw ñaq ak say bàkkaar ñooy ànd di génn nga mucc ci sawara dee tàbbi aljana te lii rek laa leen bëggal loolu noonu nag ndax ñoom ñëpp li ñu yëngu dara génn ci bëggug sëriñ bi seen yitte yëpp it ci sëriñ bi rekk lay dellu ku ko laajoon tey fii mu toog laaj ko bu jugee fii ci yitte yi mu bëgg a jëm day mel ni kon sax buñ ko sañoon a wax day mel ni ñun sax kon dañ koo tardeel waaye nag yéen seeni yitte yëpp mooy bëggug sëriñ bi bëggug sëriñ bi yëpp daa génn taalibe yi ijxal rujuhi ilaa xaw mi sahadatana wal tak fii naa yow ma jamihil xalqi niiraana bu fekkoon sëñ Tuubaa am na génn bëgg gu ñu génn gannaaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon ba mu tolloo foofa laneen lay tudd waaye du nu bàyyi xel te noonu rekk la bàyyi xel nafsi wa diini suma ahli la wax wal walat wa maskani lakk wa diixatul abad kon sëriñ bi lépp lu mu am rek mooy bëggu taalibe yi waaye lépp luy bëggu taalibe yi dara génn ci bëgguk sëriñ bi kon nañu gën gën a góorluwaat tey kon thème bi mooy waxtaanewaat ak taalibe mbir nag da koy bëgg bëgg lu mooy tax nga bëgg ko moo tax sëriñ bi ni sama bëgg yàlla ak sama bëgg yonente bi xubbu ya lillaahi wa li rasuli sa yara xumri ka laylatul xadri mu ne bëgg gi ma bëgg yàlla ak yonente bi ci la sama borom defee sama mbir mu dem ba taxaw taxawaayu laylatul xadar te laylatul xadar xayrul min alfi zaar waaye nag bëgg googu ñu bëgg sëñ bi te di ko liggéey te di ko liggéeyal ci la sunum xel dalee Sëriñ Tuubaa it lépp lu mu am xitma moo ko ko may ci digganteem ak yonente bi ba àgg ci ni battal ilaahi bi nabi charmadan bay nii wa bay na kulla man lam yuhmada suñ borom defal na ma xéewal yoo xam ni képp koo xam ne doo sant suñ borom dog na sama diggante ak yow mu mel ni cant googu nag aw làmmiñ ñu koy wax waaye ay cër moo koy jëf sunu sant sëriñ Touba munta wër lu dul ni njabootam gii mu fi bàyyi lu nu war sunu diggante ak moom dañ koy matale koo xam ne nag da nga ni boo fekkee woon sëñ di sëñ ma Manoumbe mbaa ngay Cheikh Ibrahima Fall te njabootam gii gox ba nga nekk mënuñu laa xàmmee boo ko fekkee woon it doo ci doon kenn ndax lu nekk mën naa màgget ba mu des pas-pas lu nekk mën naa màgget ba mu des itte lu nekk mën naa màggatit ba mu des yéene yéene jooju nag dëggu ak dëggal képp moo koy jàllale ci xolub murit saa bu dëggoo ba pare nga dëggal ko saa boo xëyee yaa ngi jàkkaarloog sëñ Touba ndax lépp loo gis mu gën laa jige sëriñ bi danga koy jàppee sam sëriñ Touba ndax sëriñ Saalix mi nga xam ni yitteem jëpp sëriñ Touba la te moo nu jàngal nun ñëpp ak taalibe ba ñu xam lan mooy ak taalibe dem na ba ci yoon wi gisatul ko ko mag ndax dem na ba téere bi nga xam ni ku mag ci askanu mbake yaa koy yaa koy doon di ko yor dem nan ba téere boobu nekk ci loxol Serigne Salih mu wëlbati ko doon doon doon doomi Serigne Touba wëlbati ko yi toogee xalifab Serigne Touba waaye téewul dafa jàpp ni ñi nga xam ni ay taaw lan yoo xam ni ay magam ak rakam ñoo leen fi bàyyi ak taalibe yi daa jàpp ni ci ñooñu la war a amee Serigne Touba mu liggéey ci ñoom liggéey boo xam ni amu ci kenn xaar ma yàlla. te bu fekkoon daa jàpp ni moo leen gën wala mu am beneen bët bu mu leen di xoolee bu dul Serigne Touba kon day jàpp ni moom moo war a ñu topp ci moom waaye da koo waxal boppam su ma leen jiitoo dinaa taxaw néeg leen su ma leen négee nég gi su leen dinaa dëpp daje ak yéen waaye mënumaa tàqalikoo ak yéen loolu bu ko Serigne Saliou waxee Serigne Touba képp la ñoom it foofu rek la ñu nekk. kon ñun sunu dëggal mooy lu nu gën a jige sañ Touba ñu jàppe ko muy sëriñ Touba danoo toll ci jamono joo xam ne nag yoonu murit teg xel moo ko yàq nit ñi léegi kenn ku nekk ak sa commentaire kenn ku nekk ak sa gis-gis kenn ku nekk ak noo koy xoolee ak noo koy jàppe te yooyu yëpp seytaane képp la daf noo tardeel waaye inna ibaadi sa laka alayhim sultaanun suñ boroom moo ni sama dëgg dëggi jaam yow seytaane lottu nga ci ñoom mënaloo leen dara mooy taalibeb sëriñ Touba bu dëggal fa innal murida sadiq isa arada al intifaq yaqtahu fi cheyqihi annahu waashitatun baynahu wa bayna rabbihi kon sëriñ bi moo wax ni dëgg murid saadix mooy ki nga xam ni ab sëriñam moo dox digganteem ak boroomam da koy nangu waaye nag saa bu ñu bëggee teg xel bëgg a jël leneen andi ko loolee moo nuy gàllankoor ba war sunu diggante ak sëriñ bi duñu ko def ki nga xam ne nag moom nga jàppe ab dof jàpp ne moom su sëñ bi wootee mooy wuy ji itteem yépp mooy sëñ bi ba nga jàpp ni amul métier dana wuy ji sëñ bi def fa lam fa war a def te saa bu jàkkaarloog sëñ bi jox ko lam ko war a jox te dara du manqué këram te bu ngeen xeexee ci wàllu àdduna doo ko ci ëpp la dara te bu yomal xiyaamee mu dem bala kon pas-pas bi mooy ak taalibe pas-pas bi mooy itte ji pas-pas bi mooy taxawaay bi kon nañu téyewaat sunu taalibe nan gën a góorluwaat te gën a laxasuwaat te gën koo jàpp te xam ne ak taalibe ci biirug taalibe ci la jaamu yàlla nekk ndax taali jaamu yàlla génnul ak taalibe kon loolu rek moo nekkoon kàddu yi sëñ ma xaw nañ ci saxaa guddal ñu ngi koy jéggalu bu baax waaye kàddu yi sëñ bi yi mën a tënk ci ñeenti baat xamna ne buñ ci doon fanan ba suba ci waxtu wi it du tax ñu man ko teunk waye ñu motale ci suñu yene rek di ñaan sëriñ bi defal nu tawfiix ju sax dak ñu yag ko fekke yag ko def te sëriñ bi yag nek ci suñu kanam ñu yag ko and ak mom ñi ngi sant ñepp tay gërëm ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Ya malatani ya ku يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون شر خيره صل وسلم وتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا